ndaw si fi ñëwoon doon ma fayeeku si bor fi la la fekk ba nga muuri ma fii keroog waaw fi la la fekk damay fi la fekk de waaw waaw déglu rek fi la la fekk yaa ma muuri waaw waaw waaw fekk naa waaw waaw Massi ma génn dem di wuti lu ma ko fayee borom. waaw mi nga ànd moom dem. waaw léegi ndaw su ñëw fi. waaw dafay ñëwoon léegi nii. waaw dafa ñëwoon kay dama si da ngaa réew de. rus naa la trop ni jaay. koo déggoo mu ne ma da ngaa réew lu ci sama yoon man waxuma waxaanu ma ñàkk wax ma ñëw nga naa ma da ngaa réew. Ah, ma yaa gën a leew fuuf yow da ngaa leew ba war na yàq ko banque mu di la ok fils ok fils. lu tax waxoo sa bopp da ngaa leew. ñaw. lu tax ngay fen. ah lu tax ngay fen di ma jaxase. man hmm. fen kat laa su ma neexee lu tax nga naan damay doxaan ndaw si te doxaanu ma ko. te da ngaa a doxaan. doxaanu ma ko. waaw wax wax nga léegi bi lii lii lii boo ko waxoon. cool du fay. waaw bu ñu ko waxee du la gëm. wax naa daal xam naa ni dëkk bi daal yàlla na ko yàlla gaaw ubbi ci jàmm. dëkk bi kenn tëju ko yàllaa ko tëj kenn tëju ko monde bi la yàlla tëj monde bi monde bi yëpp la yàlla tëj. kenn demul kenn ñëwul avion naawul oto demul ñi doon jaay tëj ñëpp tëj ñëpp tëj nañ daal lii moom moom moom moom moom moom man jaaxal na moom nga daan mayee ngi yalwaat gay sàcc la war a bàyyi sàcc sàcc ah. la gars war a bàyyi gën nga gën nga gën sàcc ah? wala gars yi jàppale dañ lay tëj gars yi léegi sàcc amoo sax du kenn du kenn kenn kenn kenn dootul sàcc jàppale tëj kaleen kan kaleen tëj. maanaam ko waxuma ak yow yow démb la gëj a gisante. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñaa ngi ko yow xam nga ni yow yow da nga bu la neexee ngay dof bu la neexee nga wér. xam nga loolu. xam naa waaw loolu lu tax. xaw ma loolu xaw ma def. ah lu tax. xam naa xam naa loolu waaye xamul sax. Ah. xam nga li ma wax. ñaan ko tey nag bu ma sonal dama tey moom dama. man tey dama lay karaame. Nijaay. mënu hmm. ma. Hmm. ñaata at la am. mag la de. mënu ma mu ngi njëm ba tey moom. ba war na chaque jour rek muy xembali lal bi. day saw. mënu ma day saw. te saabu nu dafa xeeñ a xeeñ a xeeñ a xeeñ a xeeñ foo ko natt wees na loolu baaxul. moo ko mu jëmu la wax ko sa gis nga ah. boo ci rek sa jabar. wala sa jëkkër boo ci rek moom. nga saw day dee yëngu woon lool. waaw yow doo ci yow yow yow doo jëkkër jabaram. la moo la ci woon. waaw. ñu xamoo ci dara ñu xamuñ ci dara man naa am man sama jabar la man naa am leen xamuñ ci dara. waaw da ngaa nopp mën ndumbe bu yàgg ba. Hmm. waaw. waaye léegi day taw moo tax léegi na matuma. mais mën ndumbe góor la yow góor nga. waaw. nu ngeen di nawantee. bon oh, yow yow góor yi na wane ay na xal yi. ah xal. xar yi waaw waaw waaye yéen du ngeen ay xar. waaw waaw waaye suñu neexee nit xar. Ah. waaw. kon nii bu la neexee nekk mala. Hmm, la waaw loolu day ko neex. mala la moom. léegi nag woo ko. waaw nga wax ko. ko man dootuma tëdd. waaw woo di ko wax dama lay wax nii góor du nobante. ah waaw loolu lislaam dàq na ko. lu nga naan mën nu mën mën ngaa nekk góor la. waaw ngóor la. waaw lu ngeen di nobante. wala ma kaa waaw lu nga ne ma lu la ci wóor. waaw ma tax ma tax ma waaw léegi bi ci des yow mosoo saw. man. Hmm. samay hmm. saw. ci ci di sa laay laay laay ma daal. Hmm. te boobu. damaa gëntoon doon nen. ndekete fuuf naa lal bi yëpp. ah. <laughs> xoolal. Eh, waay ñaa ngi ko may may ci gindi may nen di nen nan ni bu ma xëyee nag jaay lépp ndekaay bi may yeewoo fuuf naa lal bi yëpp yëpp. yow fajal laay yow. Ah. dem jëli jëli foog nga bëgg nga avant ngeen yow ma salaat yëpp. yow boo defee loolu ndax doo ko puus ci côté Maloumbe. mu ne ma nag tey fari yi. Hmm. sababu la jëkte. waaw waxam waaye ko bala maa dee. pourtant yow ñii yow lal ba defoon nga fa ay gannaaw kër de. waaw léegi kon yow gannaaw kër benn yoon. gota ah gota benn yoon. waaw benn yoon gannaaw kër. benn yoon gannaaw kër moo raw sawi Maloumbe. gannaaw kër gis nga ko ni mu bëree te yow xam na ni say gannaaw kër day nangoo bari. Aliou war na moom. Hmm? Aliou war na de. waaw ah, xam nga kuy gént di nen di gannaaw kër moom xam nga ni yooyu gannaaw kër moom di di dina ni soq bu tuuru. da nga salte nag